li ko gën a xóor fa chage loolu moo di chage wala maqlub wax di ci maqlub te laa topp na xismaani ñaari xaaj la dana ñëw ci maqlub moom ñaari xaaj waaye tey li ñu jàng mooy chage chage mooy lan mooy kenn ku wóor wuuteeg mbooloo mu wóor xadis boobu chage la wala kenn ku wóor wuuteeg ki ko gën a nekk siqa xadis boobu moom xadisam chage la léegi nag dama ne la xaayida bii nag boo ko jëfandikoo ci mustala rek jëfandikoo ko fépp ndax nag kumba mu am ndey kumba mu amul ndey xamu ci islam yéen may dégg waaw ñun ci waa boo ñëwee ci masala hadis moom ñaari borom xam-xam bu ñu waxee waxi ka gën a lëng la jël ki nga xam ne moo nekk ci suuf moo xam dañ koy sànni fële kenn du ko nangu ndax lan tax chance dañu ne waaw loolu de mandu na moom du par par loolu du dëng njub la a ah, nga ñëw fekk ñaari borom xam-xam yi wuute rawatina ko xam ko xamut ah pourtant dëgg la de kii moo ëpp xam-xam waaye nañ déglu kii rek nangam nangam yow mandoo ku moom ndey ku mu moomul nga bëgg def ci islam ki lëng hmm? laaj leen ñi xam kon ki gën a xam kooku lañ gën a jël moo gën a jara topp ndax ki xamul dafa am ko lu ko réere moo tax muy weddi ki xam nag ëpp xam-xam kooku koo xam moom lañ war a jiital loolu imaam dégg foo ko mën a fekk nag yëral loolu rek waaw ñu hmm? mm-hmm. ko appliqué fépp koo ko appliqué fépp rek gën a kii maanaam nag ku comprendre islam da xam ne dafay woote jëmee ci yàlla soo fekkee koo xam ne ni xombat na ñu bari ba yeggale leen ak koo xam ni tegtal nañu yoon yi ba waaye kenn mosu yegg doo daa sànni yoo xam nag waaye nag ki yeggale nit ñi kooku moo gën a lëng nga jël ay waxam moo gën a dal xel nga jël wax yi koo xam ne mos na gën a kenn ci borom xel yi nag lay wax dëkk sàngam nañ jëm kii da yóbbu na fa ay nit ba taay ñëpp di leen gis kii moom tegtal na ay nit ba taay naa la yoon yi fii fii dafa am gaynde mooy leen fii jaar leen fii lu ne wax na ko ci yoon yi waaye daal ñu topp tegtalam moom kenn mos ci dëkk ba suñu wutee kii yàgg tegtal nañu ñu hegg bu ne la yoon yi fii la ki musul xeggale kenn ne la yoon yi du foofu boo amee xel toppal kay xeggale nit ñi te lekkale moo gën a rëy kaala moo gën a bëri wax moo gën a bëri mbooloo sax comme que musul xeggale kenn daal yow bul def lu ñu tuddee taqlidul ama royeb royeb gumba ah mbooloo mi dégg naa ñu naan kii jàmbaar la waaye kenn musul yegg kay kenn musul yegg yow toppal ki xam yoon rek فاسالوا اهل الذكر يا لا لين نخم كلو ما حد الشاص ما يكون داو كي وته كومك وهذا لنيان يعني يوم يوم نال حديث ونسرون ما يافك بن وساني ونسرون يافك نار من اقسام الحديث قال حديث المذكور ينتد في هذه المنظومه تبي لوي وما يوم الشاذ والمقلوب دري نيو مقلوب تاي ني جان الشاذ fa chaseu ma xuufi ñing ko jëree mene sususe gi firi jarde tutude daanlu tuute waay tutude boo moom alxuroji mooy génnal xaayida ci tënk bañ xamoon abil xuroji wala génn am maahali ci naa xame nekk na si annaasu nit ñi loolu mooy jadd ku jadd nag ñu jadd ku jëmee safar rek wa fil hadis aleykum maa ngi leen dénk bil jamaati ci mbooloo xam ne le rek mbooloom jurin ma فإن إذا لا إنك الله خبي على الجماعة من شكوم بورم ومن شذ كجاد شذ جاد نينكو في النار يوب سفرك موتا شر العلم الغريب قم قم بيجنا بون شكم قم قم قم قم بتو مرانك لول نك بندق واحد جو موي مولو منك كفجيني خم خم بو أمبولو مخمو رك دب دب waaye tekkul ne lu tumuranke ci yow lu bon la almul mustalah mën naa tumuranke saxaaba waaye baax na waaye ñoom xamuñ ko woon comme nag nga ñëw ci biir ulamaa xadis yi andi ci loo xam ni benn borom xam nga xamu ko dafa baaxul lu bu baaxoon ulamaa xadis yi dañ ko xam waaye yow yaa ko xam mooy ne kon yow sa xelam jubut nga ñëw ci sufiyanke yi fekk leen ñu am xam-xam boo xam ne moom la leen yàlla jagleel nga ci wax loo xam ne benn sufiyanke xamoo ko ne yow yaa ko xam baaxut baaxoon nga gis ñu bind ko wala ñuy wax ko nga ñëw ci usulul fiq la wax yow rek la sa xam-xam bopp la baax waa usul xam ko moo tax dee leen mooy tuuti tumuranke yi man su ku jàdd suuf jàddal ko fi naari yóbbu safar rek يعني لما من خارج كوجين عنو مريس بولم جرينيا سفر لجيم فشاد أجي جاد هو الذي ما حد بنا خمنا يخالف دنو تكتيت مو أسيقة كور الملا مبولو مكو هي أي الجماعة ولا الملا كوكو جنور ديكين دي wa maalum lañ xam mooy àndal jamaata ne mbooloo aqrabu ñoo gën a jege ila sawaab bi ci njub meneen waahidi ci kenn waar jaxum ñoo gën a lang mbooloo mu hóor seen wax moo gën a dëgër waxi kenn ku hóor hmm. wa lihaada li moo tax yumkin dana jàpp ne an naqula wax innal na ko yërëm allah yàlla qaala wax na ne ما يخالف ثقة فيه الملا على سبيل المثال شون اكزامبل لا وانا مرار نقل ان مو بالقاعدة تي تنك بما ان الشاذ نساش الجد هو ما خالف ما يوتن في جمع ثقة كور من قاقن هو مم ارجو هم وقال لن نمي شون حالد نتليم او عدالت نوري شمان او دبت نوري شموكا نعم. لم وحنا شاذ مو يلو خمني كور كوتنا تنبورو exemple la rek la mu bëgg wax mooy change mooy hadis boo xam ni boroom daf cee wuute mbooloo mu mel ni moom ci góor te moom kenn la maanaam daf cee wuuteeg lim bu ko gën a bëri ñuy nettali nañ ñu ëpp nettali lu wuuteeg li ñuy nettali te ñoom ñëpp ñu maandu lañ kon jël fa mbooloo ma nekk wala boog kii ku maandu la waaye dafa wuute ku ko gën a maandu jëlal waxi ko gën a maandu kii mokkalkat la dafa wuute ku ko gën a mokkal jëlal waxi ko gën a mokkal moom moo xam ne loo koy tuddee shaadu mooy wax ju aji jàdd qiyaas كل ما لفت على الفكر بذكرت ودنا القسم الاول خارج بن يجمع العدد مويلين لان الملا نحمرا جماعه بورولا وقد يقال من يوصي ان الملا كما لهم يوم اشراف القوم من يتدم كن فهم منافري كل جنا من موكل ولا كل جنا من كما خالكم الله تعالى كما قال وانا الملا ويتدي الذين يخم استكبروا ريب من قومي كنتم ومعلوم لن قم ان اشراف نكون يتدم في علم حديث خم حديث moom ñoom alxafaasu mooy mokkalkat yi al dóoru ñu maandu ñi fekkoon mu nekk kalaamu woo xam ne chaamilan di aji yóbbu yóbbaale man ka xam ne xoo moom arjow gën a ci liim wax dara na war a ci maandute aw xib dina war ci mokkal kon boo nettali xadis daal wuteeg mbooloo mu mel ni yow wala wuteeg ku la gën a maandu wuteeg ku la gën a mokkal sa wax ja chaz la nañ ko sànni ci wàllu ilmul hadis duñ xoolati nag ak loo ak preuve yoo mën a teg te daa wuti nga waa daal dañ la dàq fële rek parce que bu ñu ubbee buntab ñu suufi ñi di gàggante ñu mag ñi bu yàggee dina ji jóge fi ndax ñu suufi ñi lañu réere moo bari kon bunt boobu borom xam-xam dañ koo tëj benn yoon mu jeex rek la parce que law sakata man laa yaalamu da tafaal xilaafu ko xamut bu noppi woon wutee jógee fi bu nag yow yow boo taxawee di eh, dàq waxi koo xam ne nii ñim la sutee kenn xamu nu mu dëgg dëgg nag lay maanute mooy mënuñ waruñu laa may sax foo waxee tëj sa wax ji benn yoon lañ war a def su boobaa ku fa nekk di wax ak yow naan la li nga wax fi nga ko tege waxe waa ji nii la ak naa la kooku si boppam sax dañ ko war a duma <laughs> yaa la war a wax rek mooy yow dégg nga ndax mel nga ni waa ji rek boo melee ni waa ji buñ la xoolee testé la gis ne mel nga ni waaj ji nag ah ñu ne waaw léegi de mën ngaa dàq ñu ñu jéem a lay waaye buñ la xoolee gis ne tolloo ci waa ji cet wee kooku nañ la nañ seet ñu jëflante yow rek duma la rek dem doxi si seen soxla yi mais amul wax ji xam-xam parce que kooku loolu du xam-xam yéen may dégg misaalu adad misaalu liim روايات جماعة بولو عن شيخ مسن سني حديثا حديث سمن فرد توب مويل أحد كان يوم برواية تنتينات ربما تخالف لوتك الجماعة بولو وتفك بولو مسيخة وتفك مسيخة كورد من بولو يوم نتل سن سني حديث كان يو كوكا مسيخة وتك يوم بولو من نتل فنقول لنا إن هذه الرواية نتل شاذة دفا جاد leannoo ndax moom xaalafa wuute nag man ga nga xam ne foofu moom arjaw moo gën a lëng minu ci moom bi ixtibaari adadi boo xoolee ci wàllu lim ñële ñoo gën a bëri kon ñooñu la ñu jël seen wax wa misaalu arjaxi misaal ku gën a lëng adalatin ci lim aw xib san wala mokkal maaluman luñ xam la mooy nga nettali keneen ku la gën a mën a mokkal wala ku la gën a maam nettali lu wutale yow soo wax dañ koy dàq boobu mooy saal loolu jar jàngoon nañ ko ci commencement téere naqul dañoon awal bu njëkk moom araji bu mooy bu lëng وشاني نيان البق هو مم أشاك ومساس هو مم حديث من مرجو مم حديث بين لنجا يعني خمنا مم من داك ويش ما دين تدي الحديث حديث الذي بين خمنا يقابل درجة كارو أشاك بالمحفوظ نعم. كن حديث بين داك مم أشاك بين جل مم المحفوظ شاك بيجا كارو مم مم بن المحفوظ مم حديث بين نعو بومي المحفوظ بين داك نت mooy istraatu istraatu wa jàpp na faaxata mu jël ndira ay lu mu bëgg wax mooy la ma araada ba mu bëggee an yem saxa mu masaara asoo boppam axasa jël na ma ndox fa masaxu mu masaa ko bi maa ngi ci ndox xëy na fadli yére yi idée yi bu bokkut ak des loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jàppoo ba bëgg masaa bopp bi dafa laalaat ndox door a masaa bopp bi waaye jërul loxo boobu masaayee ko bopp bi xàkk saa nag nii jaala di kii fi saxiix muslim ba fii riwaayati ibnu maaja si nettali ibnu maaja nag moom daf ne andoona moom masaxa masaanu usne yi ñaari noppam yi bi maayin ci ndox xëy fadli asi lu dul ndesitu boppam bi Ibnu Maaja ne ba ma saay bopp ba pare dafa laalaa ndox door a koro koro nopp muslim ne ba mu raxasee loxo yi ba pare dafa laalaa ndox door a masa bopp bi kon tajdiidul maa yi muslim daf ne ci bopp bi la ko defee nu Maaja ne ci nopp bi la la ko defee mu ne faxtalafat mu wutee a riwaayataan ñaari nettal yi fa riwaayatul muslim nettalu muslim انا اخذ جل ما نخجر اذا ببس راسي في المساء بفبا غير ما يدين بدون نخم نياري لخي وثانية نتر ابن ماجبا انا نمم اخذ جل ما نخجر اذا ببس لمس في المساء نيار نوبي غير ما مسح لبوك تقلم مساء راس بفبا كم نوا نعم. مزين دفن بمرق سيلوخي وفيدة فلا لا نخ مساء بفبا وهي نكل نخ ميدس سيناري Euh, ba mu masaayee ñaari loxo yi tooy tooy loxo boobu ndox moom la masaayee bopp bi deful noonu ñun ñu maa ne ba mu masaayee bopp a koro koro nekku ne ndox mi desoon ci mi masaayee bi la koro koro nopp xaala njëkk bi indoo ne mu muslim bi mooy ne muslim moo ma muslim هي موم المحفوظة موم لن وط ورواية ابن ماجه نت ابن ماجه تكون دينك شاذة دي جاب يعني xam nga ne jël na nettali ibnu Maalik bi Maalik bi parce que ci mazhab Maalik dañuy ko ne tëj nopp kooku sunna moo tax hadis tamit balaa benn shaaz da xool ndax mën nañ koo dajale wala mënuñ ko dajale amaana la yonent bi dafa laal ndox masaa bopp kon su foofu shaaz amu am na lu ma wax na ko ci ñaar yëpp ba mu raxasee loxo yi laalaa ndox masa bopp bi waaye ba masa bopp bi dafa laalaa ndox pour koro nopp bi léegi kii bi kii nettali te eh, ku nekk nettali la xam ne moom la kii naa am dafa am ñaari yoon yu bokkul daal hmm? yaa ngi dégg suuba kon de mën ngaa dajee xadis bi rek bur jur ngay dàq benn chage rawatina ba nga xamee ne nag eh, waxi borom xam-xam yu bëri dëggal nañ ko ne te gis ni pour masaa noppi sunna la mooy laa ndox door ko masaa sunna la loolu boo amutoon xadis boobu bu dëggarutoon tuuti borom xam-xam yi duñ ko jàppee noonu kon su ko defee boole ñaari xadis yi daal moom gis naa ne moo gën daq benn ndax kàngaay mi borom xam-xam nangu nañ ko walaay xamu duñu àtte bi mu xaalafati ci wuute bi mu jërëdi maayen xadiwu ci rafleeg la tàkk na fi zihne ci xelam àndoo ne moom mu xaalifun dafa wuute du sa xel dafay jàpp ne xaar ñaari xadis dafa wuute nga dàq ba li fi nekk yajibu dafa war a yetta amala mu setantal wa yufakkiru mu xalaat wa yanzuru mu xool wa yuxaawilu mu jéem aljamaa dajale boo mënu dajale nag mu door a xam ne benn bi chage la laa naka ndax yow isa xakamte boo bil mu ci ne dafa wuute suma xutta nga wax ne saani ci hadis ñaareel bi ne noonu moom chazun dafa jàdd fa maanaam maanaam mooy an noonu moom xëy maqbul nanguñ ko laanna min charti sahih ndax bokk na sarti hadis bu wér al maqbul buñ nangu mhm. an laa yakun mu bañ nekk mu àllan di ràgg wala chazun du nekk lu jàdd kon fen kanem nekk na chazun di lu jàdd fa na nako ñun sa narul daxu sa narul duxu dañ koy dellu moo tax bul gaaw dàq na hadis bi chaz la su ko defee nag loolu dana la ne boo xamut usul xam ni ñuy dajalee wax ñaari wax bu amee taarud yoon bi ngay jaar boole leen maîtriser loolu waroo di dàq xadis wala ngay saxal ndax man ngaa dàq loo xam ne ni yow yaa lott ci boole ko ndax sa ñàkk jàng waaye boroom xam-xam yi jàng ñoom mën nañ ko boole maanaam yow xam-xam lu da ngay faqee ca làng ga rek ne affaire bi yomb na nii rek dañ koy defee nu mu yombee dangay wax fii wax fële ñu la wax nga dëgg <laughs> loolu dafa yomb trop dangay jàng ba xam li nga war a xam nga ñëw boo ñëwee li nga war a njëkk def mooy xool ndax yow li ngay wax nii loo maîtriser la wala loo maîtriser boo ko maîtriser nag kenn waru laa déglu boo ko maîtriser nag door wax ak yow ci xam-xam فلا يجوز دغن ان نرد ني داخل حديث حديث المخالف بوتي ني جري ما ينقدو شي رفل دنا توك رك في ذهني شي خلم فلا بد دو من ياك من التامل نو ستنتل دا نعم، فانه انك مرو ما يبدو امان مفن مخالف مخالفا داجوته ولكن وانك عند التامل في جمله ستنتل لا يكون دونك مخالفا دوتي حديث بي من كو خول غيسني دا فوتي تا بوكو ستنتل غيسني كان دكه wutee wut kon balaa nga wax ne hadis bi shaaz la wala du shaaz na nga góorgóorlu xool bu baax te xool nag borom xam-xam koy def du fekk jamoo beneen beneen hadis yi hadis yi al mutaaridayn yombut waaw loolu dafay laaj xóot bu baax ci xam-xame usul mu tax ma la tee na daal hadis dafa duggalante xam-xam yu bëri moo tey bu doon xawaayit mustalax yi rek nga jàng wala nga góorgóor rek di liite téere yi ñu naan kii jarxu nañ ko kii jarxu nañ ko ba pare nga bëgg wax ne mën nga xadis xam nga nu mel hmm? mu ku ne maa dàq toggab ceeb ci dëkk bi ñu loo am mu saako ceeb am nga diwlin nga déedéet am nga gaz déedéet am nga ndugg dara loo am ne saako ceeb kon maa dàq ceeb xaw ko xaw ko du la a leer mën naa génn ceeb yi jëriñ rek waaye du mos a wax lu ku mën ceeb dàq bi ceeb da ngay am diwlin rek jumtukaay yi war a ànd ak ceeb yëpp day daje ci moo tax du jël xawaay it xam-xamu rek mooy tax nga mën a xadis il tamit nga xam loxo bu baax mën a xam xadis yi li mu firi ba xam xam jaadu na war a jaadu foo nga xam usul bu baax. mën xam ndax lii dafa wute xel wala wute wute xel mais doo jël sa xel bopp mu manqué mi di ko nattee comprendre nga. foog nga euh, dajale lu bari bëri bëri bëri ci xeet yi xam-xam comme ni ko ulama xadis yi waxee pour door mu xadis nag bu dëgër ah, boole ci nag mustalax yi xaayida euh, ci leer gu yàlla def ci sa xol tamit loolu yi mënu cee ñàkk. hada ngir islam asalaatu ma tawfiq illa billah عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته